Aalborg. Salam alaikum. Alaikum Dakar donc support AS donc ñu support AS support le Sénégal parce que vous représente le basket du Sénégal donc nous aussi euh, ci invitation Bal Dakar n'a ni li fi xew quand il y a une mission YouTube, il y a une vidéo extra, un documentaire. <laughs> Go down. Ah oui Ah, d'ailleurs, ouais. Très bien, merci. Content de moi. Alors, je vais vous Bah, ouais, ouais. Je vais vous dire. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. warul tiit moom du ragal jàmbaar moo di buuru àll bee fekk dalay daar loolu la ñëpp waa fulla fayda moo amee fulla fayda kenn ak ñoo la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee ñu ne yaay mais mënuñ ñu waay ni Djibita bi AS Douane mo mené donc nañu ñaan AS Douane mu gagné li nga xamni mom moy quart de finale bi pour que ñu mëna jouer demi finale nañu ñaan Yalla mu gagné lu ci xaw rek dama leen koy wax suivement bu leen sonu bu leen tay lepp ñeen am ay jëf do jiddu boy yaangi bir Rwanda boy yeah ma ngi sama dëkk sama dëkk bir Rwanda non man Rwanda laa léegi c'est fini. c'est fini. noo gisee Rwanda. non Rwanda franchement dëgg la set na dëgg bi rafet na gars yi yaru nañ ba pare euh, exemple la ko waat Rwanda dañu war a jël exemple ci moom ci lu bëri. mais mais est-ce que ay set ay neex rek lañ ci mën a wax. neex dafa englobé lu bëri neex lu englobé moo bëri daal. neex na daal trop. mais tey nga ñëw teg sa Antoine. waaw moo gisee Antoine bi. non Antoine bi dafa am moom ñu ngi duma waaj. waaw su ma bañ a woon sensibiliser. dinaa ko beneen moom ñu ngi duma waaj. tey ñu ngi ah, ah, koy tey ndox ndox métti. après dañ koy piim rek dañ koy piim. xanaa mën nañu ñëw supporté nii ñu ngi nii ñëw dañuy dem final jël coupe bi instant yii moom ñun benn coupe noonu amatuñu sax mu ngi kii loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu Ej, Maja, nie ma. A duża. léegi ah léegi léegi Sénégalais yi dañ lay xool xam nañ ne actrice bi dañ lay seetaan ci film bi mais am nañu bëri ñoo xam bi ñu xam seen réseau yéen seen tur yi nekk ci film bi rek. waaw mais lan mais yéen est-ce que di ngeen présenté wax seen réseau wala c'est la première fois c'est euh, une très belle expérience euh, ça fait que 24 heures mais euh, je pense que c'est la propreté l'ordre le respect c'est c'est carré

waaw continue ko en fait daa jël expérience bi rek tamit mu ne ñu supporté ay waa ñu ngi tey donc dañuy continuer ak ñoom parce que xam nga ne ay waa bu demee kuy finance damay dem ci seen hôtel ma def ak ñoom benn interview damay yéen ak ñoom. donc doo la bëgg a invité ah, mais doo mais doo leen manqué rek ma invité la. <laughs> Eh, ayca léegi bi ngay ñëw ci stade bi loolu moom euh, lu ñu war a waxtaanee man ak yow ci suuf la dafa am loo fekk sa néeg.

确认。 ayca mu ngi média staff entrance lépp rek ñu ngi woon ci stade bi nga xam ni moom mooy arena Kigali yaakaar naa ni gis ngeen programme bi nga xam ni moo fi amoon tey gis ngeen li nga xam ni moo fi xew yëpp day dañ leen di jox rendez-vous au demi-finale ñun ñëpp ñu daje fa mercredi ah, ñu ñëwaat ci stade bi xool mais ñoom euh, seen arena bi dañoo copier suñu arena teg teg. même arena douche fi mu nekk yoon bi fi mu nekk ni ñuy toogee fi ñuy toogee fleur yi rek lañ am ñoom ñun amuñu ko ba pare li ci gën a garaaw mooy dañoo ere dañuy dañuy defar beneen stade boo xam ne stade football la stade maître Abdoulaye Wade moom lañ defar stade maître xaw ma an ñoŋ ñoŋ xaw ma nan seen maître bi xaw ma <laughs> xaw ma nu mu tudd mais <laughs> bàyyi nañ en tout cas dara du leen rëcc lépp da ngeen koy am fii wait and see basketball africa léegi